أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم وفقنا للعمل بالعلم على وجه الإخلاص اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجمعنا مع المخلصين المخلصين واكرمنا اللهم بخدمة دينك وتبليغ شريعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم للعالمين أجمعين إخوة الإيمان السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakaatu wàññi ko ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suuratu yuusuf ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ñuy jël tey ñeenti aaya aaya 11 12 13 14 ñeenti aaya yu nu sunu borom di jàngal ñeenti mbir ba ca jiitu mooy taqrir qaidatu la xazra ma al qadar ay la xazra yanfau fi raddil maqdur danañ jàng tey benn règle boo xam ne boroom xam-xam yi ñoo ko wax ñu ne la hazra ma al qadar nit lu mu moytu moytu moytu moytu li yàlla dogal ci yow mënoo moytu ba nga ba rëcc yàlla dogal na ko day dal sa kaw looloo tax dafa bokk ci ponki ngëm yi al imaanu bil qadri xayrihi wa sharrihi daa bokk ci kenoy ngëm yàlla yi mooy jullit mu gëm dogal dogal ñaar la ba ca neex ak ba ca naqari ñaar yépp ngay ànd nangu gëm ko ndax la xasra ma alqadar dëgg la ab julit day mooy tandiku dundam góorgóorlu keem talaayal kattanam waaye lu yàlla rëdd ci sa jë mënoo cee rëcc qadrullah wa ma shaa faala yàlla moom mooy dogal te lu ko neex lay def su dogalee ci yow lu neex nangul sant ko mu nekk yiw su dogalee ci yow lu metti nga muñ mu nekk tiyaaba looloo tax yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne ajaban li amril mu'min man day mbirum jullit yéem na ma yonent bi nee na man mbirum jullit yéem na ma torop ba pare mu ne inna amrahu kullu xayr jullit yéppam yiw la yépp boo amee bànneex mu sant yàlla yiw la boo amee mettit wala naqar mu muñ mu nekk yiw kon jullit moom pertul mu des nag ci sunu dund àdduna li nu sant mooy nu góorgóorlu nu mooy tandiku misaal boo yoree oto dañ ko yoral limite wax ko nu muy dawee defar ay panneau defar lu nekk kon ginnaaw ba nga wàkkiirloo ci yàlla def li nga war a def respecteel code bi après nga nangu ndogal yàlla naka noonu mën naa nekk tamit ci yeneen yeneen yeneen i ànd yeneen i anam même lekk respecteel aadaabul ak lépp loo xam ne yaa ngi ciy dugg respecteel norme yi jëlal say matukaay nga wàkkiirlu ci yàlla benn waaye dafa indi gëléemam ca Medinatul Munawwar mu daal di bàyyi gëléem gi muy lambar lambari ci biir dëkk bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis gëléem gi mu ne waaw gëléem gi moom ku ko moom ba yeewuñu ko ñu ne benn waaye de moo ko moom diw yonent bi ne ko waaw yow lu tax yeewoo sa gëléem gi mu ne damaa wàkkirlu ci yàlla mu ne ko aqilha summa tawakkal damaa wàkkirlu ci yàlla mu ne ko yeew ko ba pare wàkkirlu ci yàlla kalpe bi dugal ko fi nga ko war a dugal sa xel di ci nekk nga wàkkirlu ci yàlla portable bi na nekk sa loxo wala sa poos nga bàyyi ci xel wàkkirlu ci yàlla doo jël saalal sànni ko ci mbedd mi ba pare ñu ne la lii nga naan damaa wàkkirlu ci yàlla déedéet loolu du wàkkirlu ci yàlla loolu tawaakul la ñaar dañoo dañoo bokk te nur dañoo nuroo te bokkuñ a tawakkul wa tawaakul tawakkul mooy nga jox yàlla sa bopp tawaakul mooy nga yàccaaral tëdd di nelaw naan yàlla dina ma régleel problème bi kon qaida bu am importance la ñuy jàng tey mooy la hasrama al qadar kenn mënut a mooy tandiku ndogal gu yàlla dogal ci yow kenn mënu ko yàlla li mu namm ci yow yàlla li mu bëgg yàlla li mu dogal rëdd ko ci sa jë loo moytu moytu moytu moytu loolooy liy am beneen bi mooy la hasra yanfa'u fi raddil maqdur amul njëriñ moytu loo moytu moytu moytu moytu li yàlla wax ci yow mooy lii am waaw moytu munul dara ci yàlla ndogal boroom xam-xam yi nee nañ isa nazalal bala amal basar su nattu yàlla di wàcc ci yow sa bët dañuy gumba dootoo gisati lépp lu lay mën a aar jeex na tàkk kon règle bu am importance mais terewul nga war a moytu terewul aussi da ngaa war a gëm dogal xam ne lépp lu am sun borom subhanahu wa taala moo ko rëdd ci sa jë nga moytandiku nekk ku yàccaaral mais nga moytandiku aussi nekk ku yaafuus li nga war a def defal soo waree jàng jàngal boo waree uti liggéey demal nga uti liggéey soo waree soo waree lépp loo war a def demal nga defi ko bàyyil tëdd di nelaw naan damaa yaakaar yàlla déedéet yàlla boo ko yaakaaree da ngay jóg defi da ngay jóg liggéeyi mu daan lay jàppale. danañ jàng beneen qaida mooy sidqul mu'min yaxmiluhu ala tasdiq man yaxlifu lahu wa yuakkida lahu kalaamu gis nga nit ku gëm yàlla nit bu gëmee yàlla ku mu mën a gis ci àdduna su ko kooku waatalee da koy gëm soo gëmee yàlla nit ñëw ci yow wax ak yow ba ne billaahi wallaahi wa taalaahi rek jeex na comme nit ñi nit ñuy def tey billaahi bàyyiwuma dara kër ga yow nooy def da ngay gëm li mu wax mais est-ce que képp ku waat rek wax nga dëgg loolu nag ku gëm yàlla rek ci waat lañ lay naxee ma jox leen ay misaal yu ndaw yu gàtt sunu baay aadama lan la ko iblis naxee ah dafa waat wa qasama lahuma wa qaala innani la min annaasihin dafa waat moom iblis ci kanamu aadama ak awa ne leen wallahi dama leen di laaya biir yéen ñaar yàlla li tax mu tere leen lekk garab gi mooy yàlla dafa xam ne bu ngeen ko lekkee da ngeen di nekk ay immortel wala yàlla dafa xam ne bu ngeen ko lekkee dootu leen dee li mooy sajaratul xuldi yemul ci waat yemul ci waat mais mu commencé naan leen waaw gis nga ñun man nangam maa ngi nii du ma dee malaaka yaa ngi nii duñ dee yéen démb ngeen fi ñëw kon man xam naa affaire yi xam naa li ci biir lu ngeen gisee comme ni nit ñi di def fii rek. mu wax ay waxam ba pare daal leen di waatal ci yàlla Adama ak Awa dañoo gëm yàlla ñoom ñoom mosuñu yaakaar ne nit dina gëñ ci yàlla di fen ñu daal di dëggal Iblis. ñu dem lekk ci li leen yàlla tere woon kon mbokk jullit yi ki gëm yàlla dëgg soo ko waatalee daf koy nangu mu des nag yow yaag sa waat ak say fen su fekkee waat nga muy dëgg baax na bu fekkee ay fen la fen bi yow yaa koy yenu ki nga waatal moom yoonam nekku ci mais na yaa mooy ne doomu aadama yenn saa yi mën nañ koo nax ci ay waat ndax aadama rek lañ mës a nax ci waat déedéet doo aadama rek lañ mës a nax ci ay waat de ak kan ah ak kan lañ mës a nax ci ay waat ci yonent yi bismillah yaqub waatal nañ ko tekk dañuy fen lan lañ ko waatal giñ nañ ci yàlla xale bi bu ñu demee dinañ ko sàmm fekk ay feni kese la dañoo lal seeni plan xam nañ ne dañoo nar a éliminer ji xale bi waaye ñu waat ci seen kanamu papa ne ñoom dinañu respecté xale bi danañ ko toppatoo fekk dañuy fen mais moom gëm na leen moo tax man leen ku gëm yàlla soo ko waatalee da koy nangu ak loo ko mun a wax su fekkee moom mi ngay waxal gëm na yàlla soo ko nee billahi wallahi wa taalahi jeex na ndeysaan day wax na dëgg la parce que ñi gëm yàlla moom dañoo jàpp ne nit du waat yàlla di fen waat yàllaa ko moom kenn amul droit waat ci kudul yàlla comme ni ko sénégalais yi di defee fi barke sëñ bi barke sàmba barke barke loolu bokkaale la ku waat ci kudul yàlla bokkaale nga ak koo mën a doon ku la neex nga nekk kër gu la neex juddool ku la neex na la jur soo waatee ci kudul yàlla bokkaale nga yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam man xalafa bi gayrillahi faqad ashraka yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ku waat ci kudul yàlla bokkaale nga beneen riwaaya sax dafa ne man kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw li yasmut kuy waat na waat ci yàlla te noppi kenn ñëw na ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko maa ngi giñ ci yow mu ne ko a jaalta li lillahi niddan da nga may boole ak yàlla ah da nga ma bëgg a boole ak yàlla yonent bi wax na Umar yaa Umar man kaana xaalifan fal yaxlif billahi aw li yasmut kuy waat na waat ci yàlla te noppi kon waata ngoog yàlla moom lu ko neex mu waat ndax moo bind mbindee fi moo tax gis ngeen atwalu qasamin fil quran suratu sams waat bi gën a gudd ci alquran mooy suratu sams wala yàlla li mu giñ foofu wa samsi وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغصاها والسماء وما بناها والأرض وما تهاها ونفس وما سواها جروم نياري وات يالا وات نكو ndax sar bob rek mo am wat wadduha wat la wal layli wat la والليل إذا يغشى وادلا والنهار إذا تجلى والتين والضحى يجب أي وادلا lu tax yàlla di waat ci mbindeefam yi parce que moo leen moom amma ki mbindeef amul droit waat ci ko dul yàlla dafa am ñeent ñu ñuy wax al abadala jamu la benn bi mooy abdullah jamu bi mooy abadala ñeent lañ ñoom ñeent ñu ne nga waat ci yàlla nga fen moo gën nga waat ci nit nga wax dëgg nga waat ci yàlla nga fen moo gën nga waat ci nit nga wax dëgg ñu ne leen lu tax ñu ne soo waatee ci nit nga wax dëgg da ngaa bokkaale yàlla du baale bokkaale soo waatee ci yàlla nga fen yàlla mën na laa kaa baal parce que yàlla wa yaxfiru ma duna zalika liman yasha waaye innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizalimina min ansar ku waat ci yàlla nga bokkaale yàlla du la baal nga waat ci yàlla nga fen yàlla mën na laa baal fen yi ndax yàlla dina baale lépp ba mu des bokkaale kon waat yàllaa ko moom ku gëm yàlla nag léeg-léeg nit ñëw ci yow daal lay waatal fekk day fen waaw mu day waat pour lan dëgëral la dëgëral ngëmam dëgëral lim bëgg a wax ne moom la bëgg mu waat yow jullit bi nga defe ne waa ji wax na dëgg fekk day fen te tey jii waat dañ koy fowe waat tey jii sénégalais moom sénégalais pour mu ne la billaay non loolu du dara ci moom waaw ñooñu sax ñooy ñu tane ñu naan billaahi mais ñeneen ñi ay barke Seydina Muhammad lañ lay mayak barke kenn xamut bokkaale yu bon yoo xam ne barke Seydina Muhammad sax bokkaale la kenn waru ko wax léegi nag am na benn phénomène bu xewati waat ci alxuraan kenn day def ay pénatiyem ba pare bu ñu ko nee nii bu dee jigéen mu dem muuru ñëw nan keneen ki tamit bu dee góor dem sol ay xamisam ñëw dina day waat ci alxuraan phénomène bu bees la bu sénégalais yi xewal surtout politiciens yi nag ñoo ko ci gën a mën a def te li ci doy waar gën cee ruslu mooy buñ leen di fal duñ ne indi leen alxuraan ma waat suñ defee seen dégâts ba pare ba nit ñi di commencé di leen jéppi ñu bëgg a wax nit ñi ne nangam ak nangam jël alxuraan di ci waat alxuraan kenn du ko fooyee donte ne mën nañ cee waat ndax kalaamullah la mën nañ ceewaat waaye kenn du ko fooye comme niñ koy fooye nii ci mbedd yi ak di ci def lu ñu neex loolu jaaduwut ñetteel mooy jawaazul xuzn wa annahu laa isma fihi fi lxadis wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzun dagar na ci diine naqar am naqar naqar lu dagar na ci diine dagar na ci diine triste dagan na ci diine jooy yëpp dagan na ci diine nit am naqar feeñal ko dagan na nit am problème feeñal ko dagan na nit jooy dagan na lu tax yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam dafa am lu ko métti am naqar ndeysaan mu ànd ak sahaaba yi ba ci armeel yi li mu suulee doomam ja ibrahim ñu gis rongoñam ya di tiw di tuuru sahaaba yi ne ko hatta anta ya rasulallah waaw yow yonent bi mu ne naam man la kay ah yaa ngi jooy de mu ne waaw bët yi day tuur rongoñ xol bi di ko naqarlu làmmiñ bi du wax lu dul lu neex yàlla loolu lañ bëgg ci yow wa inna bi firaqika ya ibrahim la mahzun yow ibrahima day sa tàqalikoo gi ñu tàqal ak yow wallaay am nañ ci naqar trop maanaam doomam la bu ndaw bi mu xëyee suba julli fajar ba pare mu jàkkaarloog sahaaba yi ne leen biig ci guddi yàlla wërsëgal na ma doom ju góor tuddee naa ko sama baay ibrahim ay fan xale bi daal di génn àdduna te yonente bi xam ngeen ne doomam yi ñoo ko njëkk a faatu yonente bi muy génn àdduna ñaata doom la bàyyi ginnaawam ah kenn góor la wala jigéen kenn la bàyyi muy jigéen mooy Fatima te bu mu génnee àdduna kooku tamit yàggaatu fi ndax bi mu nekkee ci sukuraat la ko woo daal di koy dee xale bi daal di jooy mu daal di koy woowaat dee ko mu daal di ree nit ñi daal di koy woo ne ko waaw Fatima yow de gis nañ sa papa bi mu nekkee ci sukuraat def laa woo nga daal di jooy mu daal lay woowaat nga daal di reetaan lu xew mu ne bi ma woowee ma jooy def ma ne feebar bi du wér day génn àdduna te moom mooy sama wéttal su demee damay wéet dootuma gis keneen ku dul moom mu ne loolu moom a métti ma daal di jooy kon dagan na nit am naqar jooy waaye ban jooy lañ wax ak nan nga ko war a manifesté woo loolu mooy suñu problème ñun suñu amee problème bu ñu wéquwul ci mbedd yi xotti suñu yére bërëngu yuuxu salleeru wax lu bon taggaate yuuxu day mel ne dara dalunu waaw di yuuxu di gajj sa bopp wooy fu ma jëm wooy torox nan wooy alku nañ wooy kër ga tas na wooy njaboot ga yàqu na wooy wooy wooy yooyu loolu dañ koo tere ab jullit yeneen bi danee xol bi na am naqar bët yi nañ tuur rongoñ waaye gémmiñ gi bu mu génnee lu dul lu neex yàlla inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi ma axaza wa lahu ma ata wa kullu cheyin indahu bi ajalin musamma ah yu mel noonu lañ bëgg nga wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yooyu lañ bëgg nga wax allahumma ajirna fi musibatina wa axluf lana xayran minha yooyu lañ bëgg ngay wax waaye di yuuxu di salleeru di gàjj sa bopp di xëpp nit ñi suuf ah am na benn kër goo xam ne dañoo yuuxu suñu koñ ñu ñëw fekk paa bi génn àdduna ñu dem jàkka ja jël kees gi ñëw bëgg cee dugal paa bi waa kër gi dañu xëpp suuf dañu xëpp suuf pour bu kenn yóbbu paa bi ba nit ñi am ñu commencé mer ndax xam ne lii réewande la loolu jaaduwul ci ay jullit mbokk yi xam ngeen ne yaqub alayhi salaam bi mu amee naqar ci réeru gu yuusuf ak benyamin dafa jooy jooy jooy ba gumba wala daa jooy ba gisatut kon nit am naqar ba di di tuur rongoñ loolu diine nangu na ko léeg-léeg nga dégg ndeysaan nit faatu ñu koy roob ci armeel yi wala ci kër gi wala wala nga gis ku jooy nga gis nit ñi naa la non non non yow en tant que yow imam oustaz te da ngay jooy tamit waa kay dañuy jooy kay ñi ay nit kese li metti nit ñi war na leen metti mais lan la ñu tere mooy li ma wax sànq mais rongoñ yuy génn dara nekku ci loolu yërmande la bu yàlla tabaraka wa taala def ci doomu aadama te diine terewu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam def na ko ay yooni yooni yooni yoon yu dul jeex tuur nay rongoñ rawatina bi doomam ibrahima génne àdduna mbokk yi ñetteel ñeenteel mooy aklu dhibi lil insaan in asaabahu minhu gafla waaqiun wa kasirun aydan loolu ñu naan zib ngeen koy wax bukki til til la till mooy zi bukki mooy dab waaw till till lekk nit loolu lu yomb la doomu aadama boo nekkee ci àll yow kenn kot bu la fa till yi di fekk di la lekk te lekk yi bon lan lay lekk te doomu aadama till yàgg na koo lekk doomu aadama yàgg naa nekk ci àll gisul kenn amul lu ko protéger till yi lekk ko ba mu jeex tàkk loolu histoire yu yàgg la fii ci Sénégal sax am na ñoo xam ne ay till ñoo leen lekk kenn gistu leen loolu boo doon dem wetu Fuuta ak dëkku àll yi Casamance ak ya ca dem di nga fekk ñoo xam ne dañoo amoon ay gan ànd ak xale yi ci àll bi réer ñibbisuñ ba tey parce que till yee leen lekk wala bukki yi wala rabu àll yi loolu lu rabu àll pour mu lekk doomu aadama loolu lu naturel la su fekkee amul lu ko protéger gaynde lekk nit wala segg wala bukki wala till wala xaju àll loolu yàgg na ci histoire looloo tax xale yi ba ñu fexeelee seen mbokk ba xam ne dañ koo nar a sànq ñu daan ne seen papa till moo ko lekk pour lan wax nañ dëgg jeex na ndax till yàgg naa lekk nit kon mbir yi ci tënk bu gaaw mbokk yi mooy loo xam ne tey war nañ kaa jàng ci sunu ñeenti aaya yi nga xam ne moom moo nekk sunu kanam ñu war koo jël insha allah kay toog fi nga jàngal aaya yi ñeenti aaya qaalu ya abana jëlal qaalu ya abana ma laka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا ولن يلتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون بارك الله فيك صدق الله العظيم jazakumullahu khairan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ne xale ya ba ñu demee def seeni plan def seeni pexe mu ne innahum baada itimaarihim wa ittifaqihim assirri ala ilqa'i yusuf fi xiyaabati aljub ba ñu demee def seen congrès mu'tamar mooy colloque mooy woote ci benn néeg wala benn saal lëlu fa ay fan wala ay semaine wala ay weer wala ay heure wala ay minute di diisoo ana lan la ñuy def ana yan pexe la ñuy tëral xale bi ñu dajaloo ba ñu sentir ne ñoom gisuñu seen bopp ci kër gi paa bi da leen a beddi da leen a bañ ñaar ñee lañ gën a bëgg mooy yuusuf ak rakkam woote nañ seen biir benn ruq wala ca àll ba fañ doon sàmmee foofu lañ waxtaane ca biir àll ba ba dëppoo lan lañ war a def ci biir waxtaan bi am na ñu ne nañ ko rey ñu ne déedéet bu leen ko rey sànni leen ko ci teen façon wax bu nekk wax nañ ko waaye fan lañu mujje ginnaaw ba ñu waxtaanee ak seeni xel ak seen bopp ba dëppoo loo xam ne secret la ndeysaan dañoo na nangu léegi buñ ko rey mais nañ ko dugal ci teen waaw ma ne sànni nit ci teen ak rey ko lan mooy différence bi ah ku ñu sànni ci teen lan ngeen xalaat ci moom ah gée benn la rek ñoom daal dañoo war a wax nañ ko rey nañ ko rey jël ko sànni ko ci teen yàlla sauvé na ko mais xam ngeen ne sànni nit ci teen ci teenu jamono yooyu nga xam ne teen yi sax da nga dem fenn ay 8 mètres 7 mètres 9 mètres nga xam ne mën ngaa daanu mais mën ngaa gaañu mën ngaa bañ a gaañu mais yenn saa yi nga gis teen boo xam ne ñetti machine ñooy xëccu ndox mi machine bi day xëcc ba sonn jox beneen bi beneen bi xëcc beneen bi jottali nit ñi teen yooyu bu ñu ci sànnee nit lu ngeen xalaat ci moom ak kan moo lay génne ba ñu dëppoo ne ñoom en secret léegi nañ ko sànni ci teen ndeysaan ñëw nañ ci seen pàpp ne ko pàppa dañoo bëgg nga bàyyi Yuusuf suñuy génn di sàmmi comme aada niñ ko doon defee ñu ànd ak moom promenade bëre ñoom dañoo gëmoon bëre dañoo bëggoon bëre xale yooyu parce que kenn ku nekk da nga doon jaay sa morom maa la ëpp doole ndax ñoom dañoo gëmoon ne ki nar a doon ya Yaaqub mooy ki ëpp doole ci famille bi au lieu ñu seet xam-xam waaye dañoo gëmoon ne wàllu nubuwa gi ki koy donn ci Yaaqub mooy ki ëpp doole ci kër gi mooy ki ci gën a ngand gën cee dëgër loolu tax suñ demoon ci àll suñ gisee ngandum xeer gu rëy dañ naan kan moo koy yëkkati ñu yendu fa di ko yëkkati ba ngoon ñu ñibbi wala ñu yëndoo bëre ba ngoon kan mooy daan ñëpp dem ñibbi loolu lañ doy fan seen bopp fekk mbir mi moom yàlla feneen la ko denc ba ñu waxee loolu seen papa moo tax yaa alquran di ñu nettali ne qaalu wax nañ ñan mbokk yusuf ñu ne yaa abaana yow sunu baay maalaka lan moo la dal yow lu la jot maalak laa taamanna ala yusuf yow de wóolu woo ñu ci yusuf yow lan moo la dal ba wóolu woo ñu te kii ñoo ngi moom ñoo bokk baay yow génnal suñu diggante yow lii lan la yow yaa ñu jur ba pare di ñu jéem a séparer di jéem a def yi en tant que gis nga nga yooyu ñu commencé indi fekk démb xalaatuñu woon lii waxuñu ko lan moo tax yow wóolu woo ñu kii sunu rakk la sunu kanam la juddoo ñu nag moom ñoo nekk benn fan sax musoo koo bàyyi mu ànd ak ñun te ñun lii ñuy def moom foofu la jëm yàgg-yàgg dana ñëw jël yat ànd ak ñun di sàmm ji xar yi parce que du toog fii ci kër gi rek nga ñuy sàmm muy ñëw di lekk ah waaw lu tax yow loolu xam nga ko ba pare léegi doo ko bàyyi mu commencé ko léegi ñu ànd ak ñun imagineel ñu am ay 30 ans 35 ans ay 20 ans nga leen di ànd ak xale boo xamante ne amagul 7 ans wala 8 ans jaadu na ñu koy yóbbu ci àll àll boo xam ne xam ngeen lu fa nekk sunu àll yi sax wóorul waxuma la ak àll yoo xamante ne kenn xamul lu fa nekk ci jamono yi nga xam ne boobu lislaam sax ñëwagut yow sunu bàyyi lan moo tax wóolu wóoñu maalaka laa tamam na ala yusuf lu tax wóolu wóoñu li tax wóolu leen yéen la su ngeen juboon ñu wóolu leen criminel yépp nag nii lañ mel criminel yi dañ lay jéem a wàññi pour am li ñu bëgg waaw tax wóoluwoo ma yow parce que yow yaa tax wóoluwuma la parce que xam parce que xam naa la gis naa ci yow ay jikko gis naa ci yow ay melokaan gis naa ci yow comportement boo xam ne moo tax wóoluwuma la keroog benn waaye daa dugg fii di jéem a dof dof lu di julli di jéem a wax ah di dof dof ma ne leen kii am nañu ko jàpp di ko génne ma ne xool leen daal lii rek mu taxaw ne ah da nga maa bëgg a jiñ sàcc kon kooku dofut wala sàcc dina taxaw dof dina taxaw naan da ngeen may jiñ sàcc kooku dofut jara jàpp ko mu taxaw fi di coow lu yàgg ah fekkee woon ngeen ko wala am na ci yéen ñu ko fekke kon ma ne doomu aadama li tax kenn du la wóolu yow la soo bëggee ñu wóolu la yow la soo bëggee ñu wóolu di la yow la am na yenn melokaan yooyu mel foo dugg kenn du la wóolu wala wala ma ne am na melokaan yu doomu aadama di mel soo ko melee kenn dootu la wóolu soo bëggee ñu wóolu la melokaan yooyu ngay teg beneen bi am na yenn comportement ak yenn langage ak yenn jëfin soo koy def kenn du la wóolu beneen bi boo yàggee tas yaakaar seen waa kër nga yàgg tas seen yaakaar ndax danañ la wóoloo di kenn du la wóolu yàgg nañ laa chargé bitik nga lekk yàgg nañ laa yóbbu ñi lay defule yàgg nañ laa yàgg yàgg yàgg day dem ba ci yàgg uf ñu xoolal yow bu ñu sonal gis nga yow taxawal ne yow say mbir pare nañ ci kon lan moo tax Yaaqub am ay doom ñu nekk ay doomu yonent ba pare wóoluwuleen ci moom la wala ci ñoom la ku ñu wóoluwul fa ngay liggéeyee yow la ku ñu wóoluwul ci biir kër gi yow la même même ñaari couple diggante jëkkër ak jabar su jabar ji wóoluwul jëkkër ji wala jëkkër ji wóoluwul jabar ji kenn ci ñoom ñaar la jigéen bu ko jëkkëram wóoluwul moom la góor bu ko jabaram wóoluwul moom la doom bu wóoluwul baay wala baay wóoluwu ko moom ñaar la am na melokaan yooyu mel comportement yooyu am jikko yooyu am façon yooyu am gars yi dañ lay jox xaalis sax koo jox xaalis sax du ko compter wala am na melokaan yooyu am soo joxee nit xaalis ne ko lii un million la du ko compter bi ñuy laata bi ñu doon waaj a ubbi suñu école boobu ak léegi mën na ñaar fukki at ak ñett su ma juumulee dama yàlla jéggal mais jege na loolu ñaar fukki at yi moom mat na sooy ubbi école dañ lay wax ne foog nga am benn somme boo denc banque pour wane ne am nga loo fay enseignant yi ma dem ci benn waaju baax yal na ko yàlla fay ma ne ko dama soxla un million dama koy dugal cinq jours suñ ma defalee reçu buy wane ne am naa fi un million ma ñëw delloo la sa xaalis mu daan may booleeg secrétaire am ma dem mu jox ma un million defal ma ko ci paquet ma dem dugal fi ma ko war a dugal trois jours ma dem ñu defal ma am naa fi un million ma retiré ko man feuille bi rek laa soxla woon parce que feuille boobu ngay booleeg dossier yi ngay déposé pour ñu reconnaître école pour ñu nangu ne école bi am autorisation bi ma demee ma récupéré waat xaalis bi ma def ko ci enveloppe ma ñëw ci waa ji ma ne ko xaalis bi nga ma joxoon laa doon delloosi parce que dama leen woon cinq jours tey mooy cinquième jour mu ne ma mbaa li nga doon lijjanti lijjanteeku ne ma ne waaw ma ne ko am compté ko mu ne ma duma ko compté pourquoi compté wu ko parce que wóolu na ma mais bu doon keneen la mën na ko compté parce que wóoluwuma kon melokaan bi ngay mel wala jëmm ji nga nekk wala wala wala wala wala looloo tax yenn saa yi nit ñi duñ la wóolu ñoom tamit ak seen digganteeg papa mel nañ melokaan yoo xam ne loolu tax seen papa wóoluwu leen moom léegi nag ñoom bëgg nañoo ñëw nag pour paa bi am ci ñoom confiance ñu commencé bëgg a xas paa bi yow bàyyi yaa abaane am maalaka lu la dal lan mooy sa problème yow ah maalaka luy sa mbir lan moo tax yow laa taman na ala yusuf wóolu wóoñu ci suñ rakk ji di yusuf lu tax wóolu wóoñu parce que yéen la bu fekkee yow da ngaa nekk xale bi ci biir kër gi chaque jour yaa ngi jël sa ceinture di ko caw du am problème ba ñëw ci yow ne la may ma foofu ñaar dërëm ma jënd tàngal wala biscuit wala bonbon wala gerte yaa ngi koy terroriser chaque jour bu la gisee sax daw dina bëru ci ginnaaw papam est-ce que xale boobu yow boo bëggee wax ak moom dara wala nga bëgg a génn ak moom nit ñi dinañ la wóolu waaye bu fekkoon ne xale bi bu la séenee nga wàcc ci oto ca mbedd ma mu daw bu bëgg a rey boppam même boo yoroon oto sax mu bëgg a ñëw bëgg a song oto bi ndax bëgg yow bëgg nga fab ko ak ak ak ak ak ak est-ce que xale ba boo ñëwee di ko yóbbu danañ la ne ropaanu daamu alors kon chaque jour confiance nit moo koy def ci boppam kóolute nit moo koy liggéey soo bëggee ñu wóolu la defal woneel waxal doxal jëfal luy tax ñu wóolu la waaye bu dee yow sa waay yu wóoree di rek ngay def kenn du la wóolu ak koo mën a nekk bu yeboo na la yonente jur bu yeboo na nga nekk bu yeboo bu yeboo bu yeboo bu yeboo nit daal soo bëggee ñu wóolu la fexeel nga wóor soo wóoree ñëpp wóolu la waaye boo wóoradee kenn du la wóolu soo lebee nit du la lebal soo déposé say kayit kenn du la jël koo koo toogal buy jóg balaa muy jóg day woo kenn salaamaaleykum moo du nga toogal ni xaar ma ba mu ñëw eh bu fi buusa de da nga toog fi xaar ma xam nga nga am gan gan gi toog ci saal bi ngay génn ba pare woote ne kaay leen ngeen toog xaar ma foofu loo wax tontuwu leen ma de mooy gan gi wóoluwuma ko moo tax ma ne kaay leen ngeen toog fii ngeen xaar ma wala ngay muy dem di dem fenn nga ni ko di wa nga ne wokke eh waaw waaw ñoom ñaar dañu ànd ñaar ñu ne non kenn gi non non non non kon wóolu woo biñ ki ñuy àndal kon mbir yi doomu aadama chaque jour yow la am na foo doon ñëw danañ la wóolu ñeme nañ laa bàyyi ci biir néegu kilifa gi wala ñeme nañ laa bàyyi ci saal bi ñeme nañ laa jox caabi kër gi ñeme nañ laa jox caabi oto bi ñeme nañ laa jox caabi compte yi sax ñu jox la ko pourquoi parce que xam nañ la parce que dégg nañ la parce que gis nañ la parce que xam nañ sa comportement xam nañ say melokaan xam nañ say dugg xam nañ say dig say génn waaye nga yegg si ci kër rek asalaamualeykum ñu ne ƴeewee paɗe mon de goto fof yo jaggo paɗe mum e juuɗe mum ay loolu loolu lu dangereux la yegg si asalaamaaleykum rek ñu ne nga dugg jàkka ji rek asalaamu ni ñu xoolal ne eh na ngeen téye dàll yi ku nekk na nga xool sa dàll waaw dugal leen dàll yi ci biir yenn saa yi mu am ci jàkka paa yi sax bu dañ na jóg ba caag rek yor micro bi seet leen seen daal de am na ñu fi nekk parce que ci koñ bi am na ñu fi wóoluwut xam nañ leen ñoo nekk ci koñ bi di jël daalu nit ñi benn jàkka fii nii ci wetu marché Sam dañuy julli fajar benn waaye ñëw jël dàll yi bi mu jëlee dàll yi ndeke paa yi dañu ko tànt benn pièce boo xam ne danaan jël dàll yi chaque jour léegi xam nañ ne dina ñëw parce que yàgg na noonu lay def dafa dafay tëbal ñu jël benn paa ne ko tegal fa toogal fële ci lëndëm gi yow bul julli bu ñu paree nga julli mu dem indi saakam jël dàll yi dugal dugal ba pare paa bi daal ne ko teeb teeb ko bàyyi ba gaa yi sëlma mu ne jàgg jàpp naa ko moo ngi nii imaam bi ne ko yow boo jëmee dàll yi mu ne dama koy raxas waaw dama koy raxas gaa yi ne ko bismillah ñëwal ñu ñëw ñëw ñuy jàppee ñu ne ko bismillah mu sotti commencé day day raxas rek xëy sata lay commencé ci kawam yi wax nga da ngay tooyal daal di jàmbur yi xam ngeen ne kooku raxasul daal yi lan la ci bëggoon ah xoolal kooku ci weeru koor lañ nekk yal na ko yàlla jégal noonu la mel continuer ci sàcc sàcc la mujj ba dañ koy dóor moom dee billaahi noonu la continuer di sàcc di sàcc ba mu dem fenn sàcc ñu jàpp ko dóor ko dóor ko dóor ko dóor yoo xam ne bi ñu ko yegsee indi ko seen kër dañ ko tëral noonu rek ndeysaan di ko defar ruy muy naan ba dee loolu ci doo- doomu aadama ma ne euh, alxuraan suñ koy jàng du nu ratatati aaye rek muy dem yàlla dafa bëgg baat bu nekk dañ cee war a jàng baat bi sunu saar sunu asaar yi tey ñuy jàng mbokki yuusuf yi ñooy discuter ak seen baay mel ne ñoom ñoo nekk ci dëgg loolu nag dañ ciy jàng ne band yëpp noonu lañ mel band yi waaw man maa nekk taaw ci kër gi mais paa bi wóoluwuma quoi koy maa wuni ci yow la waaw man kër gi maay kilifa gi mais kenn respecté wu ma kenn joxuma sama gëdd yow la wala fi nee nañ pukki bu yabee ponkal bukki bu yabee ponkal ci doxan bala yow la nga nekk taaw ci kër wala nga nekk nangam wala wala wala nga nekk kilifa ci dëkk wala nga nekk kilifa ci koñ ba pare waa koñ bi joxuñu la sa gëdd kilifa goo xam ne fee lañ koy gis muy wax di kiyente xale jigéen ñi kekeke ku ko kakakaka ku lay respecté kilifa goo xam ne chaque jour ñu ngi lay gis ci yaa ngi yor sa butéel bu sàngara di dugg ci biir kër gi wala yaa ngi yor ay kees ku pay mi yaa ngi rang pay mi wala yaa ngi am na kilifa goo xam ne dama yàlla jégal su ndogoo ba pare day daw génn kër gi ñëw ba ci terrain stade bi nii parking bi toog dafa ne kenn gisu ko ay na Allah su paree daal di doxaat ndànk ñëw ba ci bitig bi jënd singom yaa ngi may xool de mbaar yaa koy jaay si ngoom ak tàngal maan xam nga loolu musiba la kilifa gu mel noonu naka la waa kër gi di la respecté naka la la waa koñ bi di respecté te yow te yow nee nga yow yaay kilifa koñ bi yow ki waa koñ bi du la jox gëdd kon li tax koñ bi di la respecté ba ku la séen sax bu yoroon cigarette mu séen ngay ñëw mu camouflé ko wala mu làq ko ni ta- ni ngi- lu tax loolu ci yow la chaque jour na ngeen bàyyi xel gis nga bandi yi dañuy def seen penalty yi ba pare ñëw nag bëgg ñu wóolu leen kenn du la wóolu kenn du la mës a wóolu te wóor googu nekkul ñii kese la wala ñee kese la ñëpp la boo xasee wóore di nit ñi buñ la xasee teg ci suuf foo mënta dem noonu ngay mel booy dem fenn sax da ngay gis nit ñi woote téléphone moo ngi ñëw de waaye xool leen seen kër nee na nag fa la jëm wala ndeysaan nga gis yenn saa yi ñu jël kenn fu muy liggéeyee day ñëw xëy si tey suba mu xëy ñu ne ko noonu sawaay yow kaay yow ndeke dañoo def erreur quoi fekk am na information yu ñu jot lan moo tax nit buñ koy jël fenn liggéey ñuy laaj lanam ñu laaj CVM wala bu dee ci yenn sociétés yu mag yi la ñu laaj la bonne vie et mœurs cas judi- judiciaire ak bonne vie et mœurs demal police ñu jël say empreinte ñu xool yow fan nga jaar demal tribunal ñu defal la casier judiciaire ñu xool sa trace ah lu tax parce que pour ñu wóolu la pour am na ñoo xam ne amuñu yooyu mais dañoo wóor am na doomu aadama yoo xam ne du ñu lekkal kenn tarfatal ay nii fistin duñ ko lekkal nit am na ñoo xam ne boo leen dénkee nga def ko ci enveloppe bii xaalis yi nga compté ko 500 yi 1000 francs yi 2000 yi 5000 yi 10 000 yi xaalis bi nga leen joxoon moom lan lay delloo. weccit sax duñ la ko delloo comme su am na sunu benn kilifa gu gaañu fan yi passé samedi la samedi da daan jëndal nit ñi ay kër comme moom kilifa la woon da daan jëndal nit ñi ay kër mën ngaa nekk Europe nga yónnee ko mu jëndal la kër. su la jëndee ba pare fi mu toog ba tey mooy kii ba ñu jox ko këyit gi su fekkee xaalis bi am na weccit loolu lay jël lem ko daal di koy denc soo nee cëpp Dakar ni mu ko dencee woon même enveloppe même këyit même weccit même bu amee ay pièces ay 100 francs wala ay 50 francs wala nangam noonu la la koy jébbalewaat te mën naa nekk 10 ans. doomu aadama loolu la war a doomu aadama dafa war a wóor pour nga pour ñu wóolu la déedéet du du du nga kaalawu du nga sol kii du nga nekk imaam du nga am sikkim yor kuréel eh, salaamaaleykum am ñoo xam noonu lañ mel te ñoo gën a alku fii cey buñ la dóoree martu ba bàyyi la fa ngay jaar pare dootoo taxawati te ci comportement yu mel noonu lañ lay reyee man waa ji bi ma ko gisee laa ilaha yonent laa ko doon jaawale waaye bi mu la dóoree ba pare soo gisee de borom sikkim sax da ngay daw loolu musiba la kon mbirum wóor du jë du yére du compor du du du ay déedéet ci yow la pour ñu wóolu la yow la ñii nag seen papa leen jur moo leen yar ba ñu màgg toll ci ay at yi ma wax ñu bëgg a léegi nag seen papa jël xale bu ndaw bi boole kook ñoom te ñoom wane wuñu woon melokaan yoo xam ne war lañ leen mën a jox xale bi ku sarak di àndal ñu naan sarak dellul bu ko topp moytul kii yow xam nga ne kon dem du dem ah bàyyi leen ma ma ànd ak moom ñu ne déedéet déedéet déedéet yow demal yow kese am na ñoo xam ne bu ñuy dem di yóbbaale seen rak kenn du leen wax dara wala gis naa ñoo xam ne dañoo yóbbaale seen rak géej xale bi lab ñu ñibbisi de noppi parce que ñemewuñu wax ne xale bi ñoom la àndaloon xale bi lab na waa kër ga dafa ne xale bi dafa réer ah kon yéen bi ngeen di dem géej xanaa dañ leen a toppoon boo demee de xëy na ñun la toppoon ñu topp mbedd yi di wër ndeke xale ba dee na bu yàgg géej gi yóbbu na ko kenn ci ñoom moo ko bootoon dugg ci vague yi vague yi yóbbu ko ah voilà kon doomu aadama li tax ñu lay wóolu moo xam ci wàllu alal la moo xam ci wàllu doomu aadama la moo xam ci wàllu liggéey la ci yow la yow yaa koy liggéey kër gi nag lañ lay njëkk a wóoloo soo génnee ci mbedd mi ñu wóolu la suñ la wóoladoo ci kër gi soo amee jabar mu wóola dikku la sax yow pare nga seen say doom bu ñu waxee dara dara mbaa joxoo ko sa papa woo perte nga beneen yoone xale ba boo amee dara ku mu koy jox paa bi pare na même bu dee yaay ji mbaa joxoo ko sa yaay ah papa pare nga gis nga moo tax yooyu foofu lay tàmbalee léegi nag nit ki dafa war a am dafa war a nekk wóor kër gi bu ñëpp wóoree wallahi bu ñu fi dencee lekk nii kenn ubbu ko fii lañ koy fekkaat kenn du ko laal voilà kër laa bu wóoree lépp mën nga kaa fekk mu tegu place am kenn du ko laal mais est-ce que sunu kër yi noonu la mel frigo bi foog ñu utal ko kànnaar xam ngeen frigo warul am kànnaar wala damay laajte frigo war na am kànnaar tubaab yi seen frigo yi am na kànnaar yu Sénégal yi boo ko jëndee lu mu bees bees bees bees bees soo ko nee cëpp ba frigoriste bi ñëw monte nga ne ko taxawal demal kànkaayéer yi jëndal ma ñaari kànnaar ak yooyu ñu ciy def wiise ko ba mu ne keek nga ñëw benn ci kaw benn ci suuf lu tax damay laajte lu tax parce que waa kër gi wóoruñu wóoruñu suñu wóorul jarul kànnaar mais xoolal te pourtant looloo jaadure kër ñëpp war a wóor fu ñu teg mbir fa lañ ko war a fekkaat waaye boo tegee lekk nga fekk ku ci coppati bu dee beñe la nga fekk ku coppati bu dee jus la nga fekk ku ci naan bu dee wax leen wax leen am na ñoo xam ne fii lañ koy jël def ko fii booy kaa ñu dem match fekk yaa ngi bokk fi paquetu beñe bi naan match yooyu xam ngeen ne du diine su ko defee xale yi ñëw nañ ci seen papa xaalu ñu ne yaa abana yow sunu baay maa laka lu la dal laa taaman na ba wóolu wooñu ala yusuf ci yusuf te ñun wa inna lahu la naasixuun waaye ñun dañ koy laaya biir ñun sunu rakk la la musfiquun dañ ko bëgg dañoo koo ñeewant nuhibbu lahul xayra lu baax dong lañ ko bëggal kama nuhibbuhu li anfusina comme ñun niñ ko bëggale sunu bopp ndax ngëm yàlla nit du mën a mat hatta yuhibbu li axiihi maa yuhibbu li nafsihi kon yow baay ana lan moo tax nun wóolu wóolu ak sunu rakk lan moo tax wóolu wóolu ak sunu rakk lu tax te ñun dañ ko laaye biir dañ koo bëgg dañoo am ñeewante ci moom ndeysaan léeg-léeg nga gis ci kër nag mag boo xam ne dafa bëgg rakk trop trop trop waaye léeg-léeg nga gis tamit rakk joo xam ne dafa bëgg mag trop trop trop day am am na mag joo xam ne su wàccee lu mu mun a am da ci da ci da koy dencal rakkam am na benn kër ci këru jullit yi ci këru lislaam yu njëkk yi paa bi dafa dem tool comme dafa am jardin mu gis benn façon pomme bu rafet ci biir pomme yi yenn saa yi day am ci fruit yi yenn saa yi da ci am benn boo xam ne ni ko yàlla bindee ku ñëw taxaw foofu da koy seetaan paa bi yàlla may ko benn ci toolam mu am bu mel noonu ndeysaan mu daal di koy wit raxas ko ba mu set mu ne sama soxna la moo koy lekk bii kenn du ko lekk ku dul sama soxna ñu ne ko lu tax mu ne sept heures laay génn kër ga yendu ci àll bi moom mooy liggéey liggéey kër gi moom mooy togg togg kër gi mooy toppatoo njaboot gi naaj bi li mu tàng tàng tàng dana yenu bool bi indil ma ma añ dana dellu toppatoo jiwaat kër gi toppatoo ma toppatoo ay njaboot toppatoo kër gi kooku moom ma moom laa koy jox ndaw si indil ko añ ndeysaan mu daal di génne pom bi ne ko pom bi yow rek laa ko yéene man soxlawuma koo lekk mu ne ko yow pom bi rafet na de mu ne mais yow laa ko may ndaw si gàddu pom bi moom tamit di ñibbisi ci yoon bi daan na cëy sama doom ci xale bu ndaw bi Fatima kii sama caat mi laa koy jox ndax moom sept heures la génn dem seen école foofu la yendu journée continue lay def ba ngoon mu daal di ñibbisi kii bu ñëwee tey dinaa ko may pom bi xale bi daal di wàcc yaa ji may ko pom bi xale bi dugg ci biir néeg simmi blousam teg saag bi daal di jël pom bi ne nii xool ko daan ne sama mag laa koy may Ahmad ndax moom fajar lay jàngi da- fi muy dem dafa sori te day dox amul lu ko yóbbu day dox aller retour amaana su ma ko mayee pom bi coono doxam yépp dina ko fàtte mu denc pom bi ahmad ne tëll ci bunt kër gi rek bi mu ubbee bunt kër gi mu ne ko ahmad maa la may pom bi ahmad jël pom bi ndeysaan dugg néegam simmeeku teg saakam xool pom bi daan ne pom bi sama yaay laa koy may ndax moo fi yendu lu nekk moom moo nu koy defal mu ñëw ne yaay indil naa la cadeau bu rafet yaay mi ne ko ah ma xool mu dem néegam indi pom bi ne ko am yaay ñu ne ko foo ko jëlee mu ne ah man de Fatima moo ma ko may ñu ne Fatima foo jëlee pom bi mu ne yaay yaa ma ko mayoon ñu ne seen yaay yow foo jëlee pom bi mu ne seen papa moo ma ko jox xool leen kër googu kër goo xam ne ku nekk yaa ngi bëgg a nit ki lekk lii fii paa bi day wàcc jaar débiteur yi dóor ba suur ñëw toog kaay reer suur naa quoi dama xaw a gis sonn fekk sonnoo dara da ngay bañ lekk ci mbaxal meeg sombi bi loolu xale yi dinañ la bëgg ah xale yi dinañ la bëgg xale bu góor bi tamit bu liggéeyee bu wàccee jaar may ga waaw kay defal ma foofu am leen waaye lekk ba suur bu waay yaayam ne ko dañoo reer ci fonde bi yaay ji tamit moom buy togg dibi balaa muy yekk day ma ñam ndax xam na xorom balaa dina lekk fukki yàpp kër gu mel noonu ngeen defe ne ñaari kër yi ndax benn la kër goo xam ne ku nekk yow yaa bëgg a suur keneen ñeneen ñi nañ dee kon foog ñu ràbb mbëggeel ci sunu kër yi kër nag bu fa mbëggeel nekkee ñépp bëgganti ku nekk bëgg sa moroom wallaahi kër googu xéewal ak barke moo fay ñëw waaye kër bu nekkee ñépp ay dealer lañ ñëpp ay dóorkatu martu lañ kuy boo tegee sa portable sax nit dina ko débranché léegi fay ko tegal la pis bi dem suñ ñëwee taqal waa kër gi yëpp kan ci ñun fii moo demee dugg moo ñemee dugg saalam branché portable am dem nga bàyyi noonu bunt bi tëjoo ko kenn ci ñun ñeme woo ko lu tax lu tax parce que wóoluwoo waa kër gi wóoluwoo kenn moo tax doo ko def loolu est-ce que nag loolu dina jur jàmm fii ci jàkka ji lañ nekk barki dem la benn waaye ñëw bi jël rajo ba yóbbu te ci néegu yàlla la jàkk te waaji kat ñëw na fii ne ne day julli nag day julli ñaar raak allahu akbar xaw ma ñaar raak la julli xaw ma benn raak ñëw sàcc kaamil def ci saagam ñëw jël rajo bi toog fii imam bi di toog ci sées bi ñëw fee julli benn rakkaam génn jaar ni dem yoonam caméra surveillance yi ñoo ko génne ci néegu yàlla léegi loolu lan la ñuy jural ñun ñii ñëpp kenn du wóolu kenn wala loolu lay loolu lay jur lan moo tax léegi dàll yi ñu koy dugal nii lu tax jàkka joo dem ñu ne dugal leen dàll yi ci biir lu tax weeru koor gi léegi ñaata sàcc lañ sàcc fii ci jàkka ji sàcc nañ fi ay dàll ah wala am na mbokk yoo xam ne ñoo tafsir ba pare dañ leen jëndal ay dàll pour ñu ñibbi te kooku kat boo de bu demee bu ndog bu ñu tegee ndogu day ndog ba suur de bismillah zahaba zama'u wabtalatil uruqu ala wa malaka sumtu daa wooroon di sàcc woor ba pare di sàcc woor ba pare di sàcc après nga dem ndogu woor di ah fan laay dégg xaw ma benn xiyaamul leyli bu ñu jàpp benn sàcc ab Ablaay Mubaarak lii dañu fa jàpp sàcc ci xiyaamul leyli xoolal nit ñi dem dinaa fi la nekk yow de da ngaa dem di sàcc yi inna lillahi wa inna ilayhi naka la ñuy wóoloo nit ñi yow fu nit ñi daje am na ñoo xam ne ñu ngi fa ñu ngi xool lu ñuy yóbbu ñu ngi naan nii mel ne ay bukki yu si am fa dëkk boobu naka lay wóoree dëkk foog ñu yar leen ci diine foog ñu xam ne ñëpp a wóor dañoo war a wóor wallahi Omar ibnu Abdul Aziz ba mu jiitee xeet wi bukki yi ak xar yi dañ doon lekkandoo sàmmkat bi nee na keroog bu ma gisee bukki bi song sama xar yi ma ne am na lu xew ci dëkk bi mu ne ma ñibbi fekk dañoo rey président bi waaw sunu njiit yi nu ñu mel rek noonu la dëkk bi di mel man a njiit yi foog ñu baax kër bu kër bu ba- bu yaay ji baaxee baay ji baax yéen a ko wax yéen ma mujj baaba mujj yéen a ko wax jeex na tàkk olof ñu ne lu juddoo ci tàgg bu naaxul jaaxali mbokkam ñaari picc ñaari picc bu ñu amee doom seen doom nan la war a dafa war a dox wala dafa war a raam wala dafa war a féey wala dafa war a naaw damay laaj dafa war a naaw lu tax parce que ñuy naaw ñoo ko jur njugub daa dee njugub bu mu dee ñu woy picc yi ne leen seen benn mbokk dee na fee dem leen ngeen sangu ko ngeen suuli ko picc yi ñëw taxaw ñu ne kii du suñu mbokk de ñu ne ah mu ngi ni am ay laaf ñu ne waaye amul dafa am génn te ñun amuñu génn kii génnu jinax la yor dem leen ngeen wooyu jinax yi ñun du ñun ñu wooyu jinax yi ñu ne seen benn mbokk dee na dem leen fee ngeen ngeen ñu ñëw ñu ne déedéet déedéet kii du suñu mbokk ndax dafa am laaf ñun amuñu laaf ñu ne leen ngeen wooyu nit ñi nit ñi ñëw ñu ne eh kii du suñu mbokk de gis gisu leen bopp bi kii picc la maanaam rabu àll yi ku ñu woo soo ñëwee ñu ne kii bokkul ci ñun xam ngeen lu tax njugub du génn gudd du génn bëccëg kan moo mës a gis njugub bëccëg muy naaw ban dëkk la njugub du génn bëccëg njugub du naan dex du naan ci dex njugub amul dunk der la am der ndugub day indisposé comme jigéen nu muy indisposé xam ngeen loolu de mooy picc moo xam ne day indisposé picc moo xam ne amul dunk la laaf yi der la der mooy picc moo xam ne day gis ay kilomètres comme radar xam ngeen radar bët yi radar la xam ngeen lu tax du naani dex fii la am benn teen fii fii la am benn teen fii fii lay naan fii ba pare moom bu tagee du tag ni taxaw day juutu bopp bi ci suuf la ñëm tànk yi lay lonk kon moom fan la bokk kenn xamul fu mu bokk loolu nag mooy ñun ñii kenn xamul fu mu bokk nit koo xam ne kenn xamul foo bokk bokkoo fenn loolu musiba la nit dafa war a am valeur nit dafa war a am ay jikko nit dafa war a am comportement bu baax su la dara même bu fekkee koñ bi nee nañ diw moo def dara nga gis ku ñëw ne du moom du moom waaye diw moo def dara ñu ne ah dalee na bett dalee na bett am na kenn kuñ fi ne dafa dafa violé biñ ne dafa violé lu ngeen wax du ngeen ma tontu déet dégguma li ngeen wax lu tax ngeen ne du moom lan moo tax ngeen ne du moom parce que da ngeen am ci moom confiance voilà am na ñeneen bu ñu leen ne woon dañoo violé lu ngeen di wax wuyu leen ma voilà kon kon doomu aadama da nga war a wóor da nga war a wóor da nga war a wóor ba tey jii koñ bi bu ñu la nee yaa def nangam gaa yi jël ay yet ne du yow donte ne sax yenn saa yi nga def ko de parce que iblis mën na laa nattu mais nit ñi li ñu xam ci yow ci mbaax moo tax ñu ne du yow du moom du moom ba keroog yàlla di indi dëgg gi loolu moo war a nekk suñu jikko loolu nag confiance bi foo ko war a njëkk a def sa digganteeg sa baay fexeel sa papa wóolu la xoola koo xam ne sa papa ay xaritam lay woo di leen wax nangam ak nangam mais yow du la wax dara te yow yaay kilifa gi fii mais du la wax fexeel ba sa jabar wóolu la fexeel ba sa jëkkër wóolu la fexeel ba say doom wóolu la fexeel ba nga wóolu say doom kër gi bu ñu wóolantee ay caabi du fi bëri de caabi du bëri ci kër gi caabi su kër gi suñu wóolantee caabi du fi bëri lu réer du bëri tuumalante du bëri tamante dëmm du bëri waaye kër goo xam ne kenn wóoluwul kenn paa bi buy sangu sax yenn saa yi mu woddoo sabar sarbet daw sama kalfe laa fàtte ci ci sama garaam boobu bi daal di dugaat ci duus ba an ko obone woon kalpam ja jinnoomi fekk mu ngi xëpp ak saabu ah ndaw si sax yenn saa yi mu woddoo sarbet daw génn moom tamit noonu ak saabu kër googu moom mbokk yi lu ngeen ci xalaat te waa kër gi dong ñoo fi nekk yal na nu yàlla sàmm yal na nu yàlla woon dëgg saar yi ñuy jàng dafa am importance suuratu yusuf su ngeen gisee borom xam-xam yi di di di ci insister pour nit ñi di ko jàng mooy dafa ëmb dund doomu aadama dafa ëmb dund nit mbokk yi ñun wa inna lahu la naasihun ñun dañ koo bëgg ku bëgg nit ndax di nga ñëw bëgg mu ànd ak yow nga naan ko lu tax wóolu woo ma dama leen laaj ah jox ma marchandise bi ma dem sama kër indil la fay waa ji naan la ah nga naan xanaa wóolu woo ma yow jaru ko soo wóoroon waa ji bu la nee xaalis baa nga kër ga nga naan ko am parce que wóolu na la waaye boo fa nekkee di lu tax nangam lu tax nangam lu tax nangam yow la yow la di la yónni fenn boole la ak nit àndal ak kii ndax jaadu na suñ la booleeg nit yow la parce que yaa wóorul yow yaay def lu dul dëgg te gis nga nit ñi confiance yow yaa koy indi ci sa bopp benn waaye dafa nekkoon Canada di liggéey am alal torop mu yàgg àll mu ne xaaral ma ñibbi Sénégal mu ñëw jënd ay camion di def pièce détachée day jël camion yi def ko pièce détachée ba mu fees yóbbu Mali xam ngeen waa jooju lu ko lu ko gaa yi def dañuy sàcc pièce détachée yi di ko jaay ci àll bi di ko jaay ci àll bi di ko jaay ba waa ji daanu te démissionné na fu mu doon liggéey Canada xam nga leneen lu mu def léegi wóolatul chauffeur yi mu jël ay xale ne su ne dee leen ma gardeel gaa yi chauffeur yi jënd xale yi. oto yi di sol essence di ko yóbbu noonu la dañuy dem di sàcc gasoil yi di sàcc essence yi di ko jaay ci àll bi ba kenn wóolootu leen léegi nan lañuy def oto yi dañ ciy def ay GPS foo toll xam nañ la boo taxawee gaare xam nañ la foo warul gaare boo ñëwee ñu ne la fii du tax nangam dàq la loolu lu ko fi jaar te alalu àdduna te alal jooju ngay sàcc di ko dundee xam nga lu muy jur ci yow biir bu rëy feebar ordonnance dul jeex doom yu dëgër bopp jabar ju wow la dag ngiral parce que lu araam nga leen di jox seen kër gi du am barke parce que kër gi lu araam lañ ko tabaxee kër gi nangam kër gi nangam du am barke foo toll ñu ngi reyante jaasi yaa ngi jóg bomb yaa ngi naaw loolu dafa jar dafa jar bàyyi xel soo bëggee am dund gu tranquillité fexeel nga nekk ku wóor fexeel nga nekk ku jub fexeel sa njaboot nekk ci loolu fexeel soxna si nga am ñu nekk ci loolu kër gi day nekk kër gu tranquillité yow bàyyi lu la dal ba wóolu wóonu nga bàyyi ñoog sunu rakk te ñun dañ ko dañ ko bëgg lan la ñuy wax bàyyi ji ñu ne ko arsilhu maana gadan libéré ko nga yónni ko mu ànd ak ñun suba yartau wa yalab mu cëppi cëppi foo fecc lekk naan njëkkante bëre suba na ñëw xale bi nga tëj fii rek bàyyi ko mu génn def loisir daw ci montagne yi lekk ci fruit yi lekk ci meññeetu garab yi waaye gis rabu àll yi gis garab yi yéeg ci montagne yi wàcc bëri ak ñun tuuti lekk suñuy dem dañuy yóbbaale lekk suñuy dem dañuy yóbbaale naan loolu xale yi naan génn sorti waaye ndax sorti yi ak sorti yi benn la ah damay laaje ndeysaan benn koñ bu soriwul dara ay xale yu góor ak yu jigéen dañ faa organiser sorti ah koñ bi soriwul de booy yi dañoo organiser sorti ka jiite woon sorti bi xam nga bi ñuy dem lu ñu def dañoo otesu xale yu góor yi ay kilot lañ sol ak ay t-shirt tent seen bopp yi rosa seen kii rocc seen tuñ yi xale yu jigéen yi sol ay mini yu yem fi yoo xam ne ak ay soutien ñu luye fi oto seen yaay yi toggal leen ñu jël fi benn kaar xaw ma njaga njaay sol ko ba mu fees del del del ay xale yu góor ak jigéen ak seen musique ñu dem ñu dem fa lañ demoon du ngor de du Lac Rose de tubaab jalaaw lañ demoon ñu luwee foofu benn appartement ndeke kër gi dafa am piscine ñu yegg si simmeeku dugg ki jiite woon affaire bi lab ci biir piscine ba dee foofu la dee ci biir wallahi bi ñu annoncé ci koñ bi ne dee na bés boobu kenn du ko fàtte xam nga lu garaaw mooy balaa ñuy dem seen estati yi ñu defoon seen ñàngaay yeeg seen non kenn du ko mun a xool te kooku dee na mu ne doomu aadama war ngaa bàyyi xel da ngay dem waaye xamoo ndax di nga ñibbi war ngaa bàyyi xel lii may def lu dagan la wala lu araam la léegi kooku dee ci melokaan boobu mbokk jullit yi ñun ñëpp de dañ koy ñaanal yàlla yërëm ko jéggal ko waaye lan ngeen xalaat ci moom ndax lu baax te bi muy dem am na koo xam daf ko xool ne waaw yow kii du est-ce que tur bu baax la yoroon kii du diw ba nu mel nii waaw tey dañoo am sorti quoi dee may sotti rek nii ngay mel non dem daal dee lekk yooyu kenn lekk ko fa noonu bi ñuy ñibbisi arrivé pay lañ def de ndax tiit dañoo daw kenn ku nekk xamoo foo jaar ndax police moo fa ñëw ak sapeur di di jël si néew bi gis ngeen te tey ñun ñëpp dañuy bàyyi ba léegi te xoolal ba léegi de koñ boobu ba léegi ñu ngi ñu ngi dem ay sorti lu ci gën a yéeme jour bu xale bi dee jot ñu ne dañuy def anniversaire dañuy demaat wooy Sénégal anniversaire lu xaraam anniversaire lu araam ndaw si dañ ko ëmbal mu am doom doom ji bis bi ñëwaat mu ne day anniversaire ñaata ngeen ko fi gis ah ñaata anniversaire lu araam li ngay feetal au lieu bàkkaar bi nga gas ko suul fàtte ko waaye déedéet année bu nekk damay feetal bàkkaar bi Sénégal dong nga koy gis te hadis ba nee na yubu as kullu abdin ala ma mata alayhi ku nekk ni nga deewee noonu ngay dekkee gis nga yowmal xiyam dina am ñoo xam ne ci ay baar la ñuy dekkee butéel sàngara yi nekk seen wet yowmal xiyam am na ñoo xam ne bu ñuy dekki ci sàcc la ñuy dekkee am ñoo xam ne bu ñuy dekki ci njaaloo la ñuy dekkee am na ñoo xam ne bu ñuy dekki fa ñu deewee ci ay bakkaar foofu la ñuy dekkee moo tax yonent bi naan sahaaba yi bu ma daje kenn yowmal xiyaam mu yenu gëleemu jàmbur naan ma yaa muhammad yàlla nee na wa man xalla yaati bi ma xalla yowmal xiyaama képp ku sàcc fii yowmal xiyaam li nga sàcc di nga ko yenu indi ci yàlla kon doomu ndey yi mbokk yi ci yàlla jaadu na de wér na ñu jàngaat defaraat sunu dund ci diine diine lislaam diine la joo xam ne waxuñu la rek nga tëj sa bopp ci biir kër gi tëj sa bopp ci jàkk ji di woor di julli di jàng alxuraan doo génn doo lekk doo naan doo solu doo doo doo doo nekk ci lu ligsi déedéet kenn waxul loolu diina ji dagal na la lekk waaye lu dagan diine ji daganal na naan waaye lu dagan diine ji daganal na fo waaye daf ko daf ko limité diine ji daganal na musaabaqa njëkkante waaye daf ko tënk diine ji daganal na bëre waaye daf koo tënk kon diine ji du diine joo xam ne loo wax rek xaraam xaraam xaraam ba nit ñi toog def nii koo wax sax reetaan da ngay reetaan yow subhanallah ñii dëgg de am na ñoo xam ne waaw yenn saa yi imam da ngay daw misaal imam bu wàcc sol ay dàllam sol blouson am di entraînement eh mi hande imam na toga loolu dara araamul di wala wala nga gis ko ndeysaan imam daal di solu wala sëriñ bi solu wala ñëw ci benn restaurant eh, dafa lakkal ma foofu dibi daal nga dégg yow di lakk dibi waaw loolu daf la ci nekk wala mu yor oto i xool xool gi imam léegi day dawal oto yooyu ay mentalité yoo xam ne ci ñun vraiment kenn xamul suñu mbiri boobu ñun dañoo yaakaar ne imam moom dafa war a nekk ku torox ku toog fële ku ñëw rek daal lay sarax benn sondel ak benn guro ak juróomi dërëm ne la imam macha allah déet imam dañoo war a liggéey imam du fonction de war a dem liggéey su julli jotee mu ñëw julli su su sëlmalee dem liggéey imaam dafa war a bàyyi ci tool yi imaam bu dee chauffeur la na jël oto bi dawali jeex na tàkk bu dee nappkat la bu jullee ba pare na jël gaal gi dugg géej su julli jotee mu ñëw jiite jaamu yàlla yi bu ñu sëlmalee ñu dem ma ne diine lislaam terewuñu dund da ngeen de terewuñu sol lu rafet terewuñu dëkk fu rafet terewuñu am ay oto terewuñu terewuñu amul fenn fu ko islaam teree bal sax yàlla dafa ne yàlla dafa ne ci alquran qul man xarama zinata allahi allati axraja wa tayibaatu xoola aaya bi mu konte yàlla mu wax ah mu ne qul ya lillazina amanu fi lxayaati dunia xaalisatan yowma alqiyaama yéena ko moom ci àdduna lekk leen lekk yu baax yi tey ñun ndeysaan jàpp nañ ne ñun waruñoo am lu baax déedéet dañoo waram lu baax parce que yàlla moo ne mu ñoo moom moo ñu koy indil wallazi xalaqa lakum ma fil ard jamian lan la yàlla bàyyi wallazi moom yàlla mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen defaral ma fil ard jamian lépp lu nekk ci suuf yàlla nee na maa leen ko defaral yéen yéen a ko moom mataan lakum wali ana amikum tey boo ñëwoon benn kër ci benn këru mbokk jullit nga ñëw këram ndogu nga fekk ñu ngi teg ginaar bu ñor xoom ñu ngi teg ay palaat yu am fruits ñu ngi teg jus ñu ngi teg table bi ñu ngi ko defar ba mu rafet teg fourchette yi teg serviette yi teg teg saabu bi teg teg ndox mi ah teg banc yi looy wax kii est-ce que oustaz la kii est-ce que oustaz la kii est-ce que imam la sa xel loolu lay nekk di wax kii est-ce que sëriñ la sëriñ boo xam ni ay ginaar ay fruits ay table yu ñu teg ay kudduf ay fourchette ay ay serviette yi ñuy def fii waaw léegi loolu kan est-ce que dafa araam ci jullit yi fan lañ jàng yàlla mu ne araam na ci jullit loolu jullit moo ko moom loolu tax xale yi ñu ne papa bàyyi ko arsilhuma ana bàyyi ko mu ànd ak nun xadan suba yartau wa yalaabu gis nga baat bi sax lañ indi mu foo mu firi mu cëppi cëppi wa inna lahu la xaafizuun ñun danañ ko garde ñaari baat a ngi nii ñoom ñoo ko wax wa inna lahu la naasixuun ñu ne waat wa inna lahu la xaafizuun ku jubul rek mooy mooy utiliser nii ku jubul mooy bëri wax wax yu mel nii répété yii ñu jubul dong c'est que na jub nañ benn bi dong doy na wala bu mujj bi doy na ñun danañ ko bëgg ñun danañ foo ak moom ñun danañ ko garder am na lu ngeen nar am na loo nar yow mi taxaw fii naan waaw waaw fii fii dara du fi am insha allah waaw lépp dina nekk en sécurité lépp dina nekk yoon da ngaa bëgg rek nit ñi dem nga def li ngay def waaw loolu tax ku bëri wax kuy wax wax ju bëri bu yóbboo ngeen def attention ci moom parce que dëgguwut ku dëgg du bëri wax teg leen noonu ngeen dem da ngay gis nit ñi teg dem waaye incha allah teg leen rek yéen kay di ngeen xam ne tey man mii ah eh eh wóorul dafa leen attention ci kii di wax ak yéen loolu ñu bàyyi ci xel ñoom nee nañ seen papa ñun danañ ko garder wa inna lahu la xaafizuun ndeysaan seen papa léegi nag moo war a tontu qaala mu ne inni la yaxzununi ah dana ma naqari de dana ma metti torop an tazhabu bihi ngeen yóbbu ko te kii yonent la lan la ñuy jàng ci baat bi mu ne wa in innani la yaxzununi lan lañ ciy jàng mooy jullit dina am naqar kon ndeke sa nekkug jullit teguwul ci encore ne waroo am naqar di ah kay da ngay am naqar am métit di feebar di dund la di deele di xëy doo am dépasse boo joxe sa kër waaw bu kenn yaakaar ne kii waliyu la kon warul manqué dépasse ah kay kii yonent la këram warul manqué dépasse wala warul feebar déedéet loolu binduñu ko fen doomu aadama nga da ngay am natt comme doomu aadama yi ni ñu amee not yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam doomu aadama la wala jinne la malaaka la doomu aadama la wulida kama wulida al bashar dafa judd nit ñi juddoo wa aasha kama aasha al bashar mu dund ni nit ñi dundee wa maata kama maata al bashar mu dee ni nit ñi dee yonent yàlla Muhammad bu muy judd dafa am ndey am baay ñu ëmb ko nit ñi ëmbee nit ñi judd jot mu judd ni nit ñi juddoo plongé wul jógewul kaw asamaan plongé feew ceg teg teg si bi muy ñëw solul ay mbubu kaalawuñ ko dafa ñëw nekk liir bu tooy xeb di wax uwee papam nekku fi maamam daal di koy jël ndeysaan daal di wër ak moom kaaba gi juróom-ñaari yoon daan ne leen sammaytuhu muhammada tuddee naa ko muhammad ñu ne ko lu tax mu ne li yakuna mahmudan bayna samai wal ard ndax yàlla def ko ku ñu gërëm diggante asamaan ak suuf mu dund commencé dund metti di metti di liir di dund ñu jël ko nàmpali ji ko ci giiru saadiya yar ko fa mu jógee fa ñëwaat delluwaat commencé yor yat di ànd ak xale yu ndaw yi di sàmmi la ko fa jëlee mooy jibril moo ñëw jàpp ko ca àll ba xar dënn bi raxas xol bi bi xale yu góor yi gisee am na ku jàpp Muhammad tëral ko fële ñu daw waxi ji ko xalima benn paa jàpp na Mohamed ma nga fële nu mel dafa yëre yu weex la sol dafa kaalawu dafa am sikkim nangam ak nangam ma nga fële ci ginnaaw montagne bi ñu daw bi ñuy ñëw ñu dajeeg yonent yàlla Mohamed di ñëwaat. ana ana ki la jàppoon dem na lan la ah xaw ma lan la de fi sama fii daal fii fii ñu xool gisuñ dara ndeke foofu da koo jàppoon xar xol bi. génn xar dënn bi génne xol bi dindi wextan bi raxas ko ba mu set daal di ko ci dugalaat looloo tax mer du mer lu dul luñ def yàlla waaye moom mbir boppam musul mer xalima daal di tiit na kii doomu jàmbur la balaa mu fi am problème naa ko delloo looloo tax ñu delloo siwaat yonent yàlla muhammad bu mu ñëwee kan lañ ci kan la nekkoon ah maamam maamam génn àdduna ñu yóbbu ko ci bàyyi te xam abu taalib xoolal changement yi xoolal coono googu xoolal métit yooyu loolu tax yàlla naan ko wadduha walleyli isa saja ma waddaaka rabbuka wa ma qola wala al axiratu xayrun laka min al ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman wa wajadaka dollan wa wajadaka ailan kon nag fa amal yatima fala taqhar wa ama saila fala tanhar wa ama bi ni'mati rabbika fa haddis sallallahu alayhi wa sallam mu judd comme nit ñi nit ñi juddoo mu dund nit ñi dundee dund métti yi waaw yaayam dee papaam dee maamam dee abu taalib dee soxnaam dee mu sàmm ci àll bi dox ci naaj yi waa màkk ambargo ko mettital ko sonal ko mu génn dem taayif ñu dóor ko ay xeer ba yaram bi di nàcc ba at ba mu tuddee ko amul huzn waa Màkka génne ko ndax ba ko rey mu dem Madinatul Munawwar xoolal métit yooyu mu dem Madina dem jihaat ñu dóor ko ba mu daanu ñu xuri ko bëñ bi damm ooñ yi xuree ko ñu rey ay sahabaam Umar Usmaan Ali rey ay sëtam Husayn Hasan tasaare njabootam aala bayti yëpp ñu jàpp leen def leen ay jaam rey góor ñi jàpp jigéen ñi def leen ay jaam xoolal métit yooyu sallallahu alayhi wa sallam dund waaye bu muy faatu tamit noonu la faatoo ji malaakal mawti moo ko rey comme ni ñuy reyee nit ñi waaye bu doon fii la ñun sëriñ bi du nit bu dul nit la la malaaka la o wonaa neɗɗo so wonaa neɗɗo ko woni ko jinne ko malayka ko allah o mooy lan kii nuroowul ak nit ñi kii am na lu nekk ci moom kii dara nit kese la ba ngeen fi tegee mbaxal mu dóor ko ba mu jeex tàkk raxasoor fomp si kim bi diw parfum ngeen naan du nit bañ a nit bu toogee ba jàng day jël satala bi dugg fii génnaat dafaru ba rafet toog nee na asalaamaaleykum yeneen ci jàmm nit la comme nit ñi Isa ak yaayam bañ ne yàlla la yàlla dañ ne leen kaana yaakulaani taam yéen yàlla Muhammad doomu aadama la woon waaye moo gën ci doomu aadama yi sallallahu alayhi wa sallam danaan toog weer cin du tàkk këram tëdd na guddi sax di nelaw mënut a nelaw ndax lan xiif mu génn di wëri lu mu lekk ba kër abu ayub ansaari la mujje ndeysaan kooku tegal ko benn yàpp mu lekk lu mu lekkee ba pare mu ne summa la tusaluna yawma izin anin naim bàyyi bàyyi ñu ñu garde ko mu ne la yaxzunu nii dina ma métti dana ma métti yonent bi am na lu ko métti yaqub am na lu ko métti ibrahima amul yonent bu amul lu ko métti yunus moom sax dafa am lu ko métti ba gedd dëkk ba génn amul yonent bu amul lu ko métti kon doomu aadama foog nga am méttit foog nga dund lu métti kër dafa métti yor soxna dafa métti yor njaboot dafa métti liggéey dafa métti foog nga dund méttit ndax doomu aadama yàlla nee na maa ko bind ci coono laqad xalaqna al insana fii kabat kabat kabat ba aljanna wala kabat kabat ba safara laa budda bil kabat munoo toog rek ne doo kabat ñaari kabat yi nag moo fi nekk kabat ba aljanna wala kabat ba safara toog nii rek doo def dara déedéet même lekk sax kabat la lekk soo lekkee ba jaag da ngay ñàkk tooy xeb tàlleen ventilateur bi waay dafa tàng te lekk dong ngay def soo lekkee ba pare nga tëdd nelaw lekk bi ne gur gur gur gur gur nga jóg dugg fale coono la minute yi nga fay def sax coono la nga ñàkk tooy xeb daa di génn di xool ndax am na ku la gis aha mu ngoog doomu aadama nga yàlla loolu la la def ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam dund googu la dund ak nun mu jàngal ñu lépp nekk modèle waaye nag moo gën ci nit ñëpp nag moo gën ñëpp nag waaw fii nag ñun dañoo gëm ne am na ñoo xam du ñu lekk du ñu naan ay wàllu yu lañ du ñu sëy waaye fii ban kilifa moo fi amul jabar waleen ma ko ban kilifa bi moo du lekk moo amul salle de bain ñëpp am nañ ko mooy wane doomu aadama lañ lii dal doomu aadama yi da leen di dal léeg-léeg nga laajte ko ñu ne moom de dafa feebar yóbbu nañ ko France faji ko doomu aadama la léeg-léeg nga laajte ko ñu ne dafa dem dëj dafa jaale ji doomama dee wala jabarama dee wala taalibeem moo dee dañ leen wàcce suñu bopp ay jaamu yàlla lañ ñëpp ay jaamu yàlla lañ in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahmani abda ci kaw suuf si asamaan si tiim ñu képp ku fi dukkat ab jaamu yàlla nga moo xam ci asamaan nga nekk moo xam ci suuf nga nekk ahbaabi fillah yusuf yaquba nee na leen inni la yahzununi dana ma métti an tazhabu bihi ngeen yóbbu ko boo nekkee ci kër nga nekk bàyyi nga war a ànd ak sa doom sa jabar wóoluwu la yow la boo nekkee ci kër nga nekk taaw ci kër gi nga war a ànd ak say rakk wóoluwuñ la yow la soo nekkee ci société ngay liggéey wóoluwuñ la yow la soo nekkee ci quartier wóoluwuñ la yow la lan moo xew mu ne wa axaafu an yakulahu zibu ragal naa bu ngeen ko yóbbee ci àll bi noonu ngeen di nekkee ci seen mbir seen mbir di bëree fee di cëppi-cëppi fële di daw fële di sangu fii amaanakat benn till ñëw lekk ko fekk yéen du ngeen ko yëg wa antum anhu ghafiluun fekk yéen ay innocent ngeen da ngeen ko bàyyi woon ci yére yi mu toog di ko garde ndeke bukki bi yoxosu na ko ñu ne benn kilifa ci kilifa yi diine Sénégal yi li tax yàlla may ko doom ju baax mu siiw torop nee nañ yaayam da doon julli ak papaam mu teg doom ji ci digg bi maanaam dañ doon xiyaamul léeli ñoom ñaar moo ak papa ji ci àll bi papa yaa ngi ci kanam yaay ji mi ngi ci ginnaaw yaay ji jël doom bi liir bi mu daal di koy teg ci diggante bi ci kanam fi muy sujjóotee mu teg ko foofu bi ñu kàbbaree ñoom ñaar papa ji di jàng till bi daal di ñëw yóbbu liir bi bi ñu sëlmalee papa ji sëlma waaw yow an sa doom mu ne ko till bi moo ko yóbbu mu ne mënoo woon yuuxu ñu nga dagg julli gi nga wax ma ko mu ne ko yow yaa waroon dagg julli gi mu ne ko lu tax mu ne ko yow kenn ngay topp man ñaar laay topp moo tax man mënu woon dagg julli bi mu ne ko yow yenn ñaar ngay topp mu ne ko dama lay topp yow di topp yàlla mu ne ko man kan lay topp mu ne ko yow yàlla kese ngay topp yow mënoon ngaa dagg kon nga topp ko papa ji daal di xool ndaw si ba càgg mu ne ko tàllalal sa loxo ma ñaanal la mu ñaanal ko mu am doom bu mag bu siiw bu àdduna bi ñëpp xam ñu ne looloo tax mu am doom boobu almuhim li mu bëgg a jàngale foofu waxoon naa sànq ne till yàgg naa lekk nit rabu àll yi ci àll bi yàgg nañoo lekk ay nit bëri na fu ñu songe nit guddi lekk la wala bëccëg yow kenn boo wéetee ci àll ñu fekk la fa lekk la waaw loolu moom lu naturel la luñ fi fekk la depuis taarixu àdduna yàgg nañoo dégg ñu ne rabu àll yi ñoo ko lekk am na nit ñoo xam ne rabu àll yi ñoo leen lekk amuñu amuñu bàmmeel amuñu bàmmeel parce que rab yee leen lekk saax saaxe leen xëcc fii xëcc fii daal di yóbbu seen yàpp lekk leen ba ñu jeex tak lan mooy wan nit ñi ne diw dey rabu àll yi ñoo ko lekk dañuy topp trace yi gis fee benn loxo gis fekk yax la gis fee benn tànk gis fële bopp bi ñu xam ne kii wala ñu ñëw fekk fi ñu la doon lekk sa yére nangam ak nangam ñu xam ne kii rabu àll yi ñoo ko lekk. léegi nag bàyyi ji ubbil na leen bunt comme biñ ñëwee di ko tàggu. naan ko bàyyi ñoo xale bi ñu ànd fow yi def nangam ak nangam ñun danañ ko sàmm danañ ko indi bim leen ne man de dana ma metti ngeen ànd ak moom fa la waroon yem gis nga baat boobu mu utiliser moom la xale yi exploité dama ragal tilli lekk ko ubbil na leen bunt moo la bañ demee def seen yëf ñu ne tilli yaa ko lekk di waa waxoon na maa ragal tilli lekk tilli yooyu nga ragaloon ñoo ko lekk moo tax ñu ne fii nit boo koy tere dara bul egg ci li nga koy tere aadama bi ko yàlla ne wala taqraba haasi sajara nu mu def dafa dem lekk doomu aadama lu ëpp ci moom même sa doom boo koy jox ndogu nga ub bool bi nga ne ko xoto hippit boolo naw ngarta suy tourner di ubbi bool bi même société bi bu ñu tëjee ay magasin chef bi mu ne magasin yi bu ko kenn ubbi bu gardien bi di wéet wala ña fay liggéey bu ñu wéet di ko ubbi doomu aadama moo moo bëggul lu ko umb saa yoo ko teree dara bu ko def nga gis mu def ko kër gi da ngay wax lii bu ko kenn laal nga ñëw fekk ah laal nañ ko lii de bu ci ke bu ko kenn lekk nga jékki-jékki rek ko dégg sama biir a ngi métti lala lala lala xoolal sama soxna mosoon na jënd gaz gaz yi ñuy raxasee cin yi mu def ko ci butéelu siro bu jeex mu dugal ko ci biir néeg bi ma ne ko lii wóorul parce que xale mun na ko fekk fi mu defe ne siro la dindi ko fi mu yël siro gaz boobu butéel bi dem denc ko néegu maamam xam nga génne na ko fi xale bi xam nga fan la ko fekk kenn néeg ba la ko fekk ba pare naan ba doyal yi génn naan mi yari suro suy du maam mi yari suro suy du maam mu génn ne woy mi yari suro rek kër ga daw ñu jëndi ay meew ak yóbbu hôpital parce que xam nañ ne gaz la naan doomu aadama souvent bu ñu koy tere dara da koy laal loolu tax nga indi sax rek denc te waxoo moo gën a wóor nga naan leen moytu leen lii da ngay gis ku ñëw est ce que lii ku ko laal dee paa bi day sóob laal ko nag yëfi ne ko kirtib ñu ñëw ne ko terewuñ loolu la fekk c'est trop tard doomu aadama moo mel noonu beneen bi mooy lu ëpp ci nit ñi soo waxee dara ci ci ci li nga wax loolu la ñuy tóot loolu la ñuy profité def li nga def loolu moo tax gis nga enquêteurs yi li tax ñu garaaw ba loolu la ñuy exploité yow lan la ñu waxoon ak yow su ko waa ji waxee wala nga wax ba pare rek dañ lay jàpp ci baat yooyu lañ lay enquêté ne la crip yëpp téye parce que xam nañ ne yow la gis nga xoolal ñoom bi ñu demee def seeni pexe ba pare ba jël Yuusuf sànni ci teen ñu dem jël benn xar rey ko daal di jël deret ji simmi mbubu Yuusuf bi mu soloon ñu sotti ko ci kaw ba deret ji tooy ñu def ko nag di ñëw nag ngoon di jooy paa bi ne la la ñu ne ko loolu nga waxoon loolu moo am mu ne la laa waxoon ñu ne ko yow yaa waxoon suñ demee dangaa ragal tilli lekk ko léegi nag ñun dañoo demoon di foo rek tilli lekk nañ ko xam naa ne sax nag doonu gëm xam nañ ne doonu gëm waaye mbubb maa ngi nii paa bi jël na mbubb mi mu ngay jooy dugg na ca biir néeg ba jooy na ba sonn jooy jooy ba sonn rek daan ne nii mbubb mi ay waay sama mbubbu doom mu ne nii eh mu daal di génn téye mbubb mi salaamaaleykum ñu ne mu ne yéen ngeen ne ana Yusuf ñu ne gis nga lu ñu waxoon a ngi nii xamoon nañ ne doonu gëm wax nañ la tilli ñoo ko lekk mu ne tilli bi moo am yërmande tilli bi ka baax ñu ne ah mu ne mës ngeen gis tilli nekk nit ci mbu lekk nit te mbubb mi xotteekuwul rek mu ne nii mbubb mi rek ñu ne ñu xoolante ci suuf quoi ah tilli bu bu lay lekk nii fi mu nekk nii bu màttee nii bu dindee nu muy mel day bokkate ko moom mi da ci ànd waaye ndeysaan ñoom dañoo def erreur gis nga yooyu yëpp enquêteurs yi dañ koy exploité looloo tax souvent ku def crime rapidement dañ lay jàpp c'est parce que mun ta nekk bukki wala till wala gaynde wala segg wala benn rabu àll munul lekk dara te la mu soloon dañu yaa xotteekuwul wala moo tax ndeysaan yaa ko mu ne leen waay waay till bi moo baax waaye tilli bii de tilli bu am yërmande la ñu ne baaba lu tax mu ne naka la ko tilli bi lekkee te yëre bi xotteeku wut rek nag lañ xam ne ndeysaan def nañu musiba ci lañ leen wax nag deewul wax leen li ngeen def deewul de wax leen li ngeen def ndeysaan waaw waaw wa axaafu an yaakulahu zibu wa antum anhu gafilun ragal naa till lekk ko fekk yéen moment yooyu da ngeen a sàggane qaalu ñoom ñu ne ñoom doom yi la in akalahu zibu bu ko tilli lekkee wa nahnu usba ñun ñuy mbooloo kon inna la xaasirun inna isan la xaasirun kon dañun perte nañ kon dañun torox nañ naka la ko tilli di lekkee ñun ponkal yu tol na ñun ñu nekk fukki ponkal fukki góor benn pon- benn kii kese till ñëw lekk ko ñun ah waa léegi ñoom ñoo ne woon nax nu usba léegi ñu bëgg a ñëw ne tilli lekk na ko loolu nu mu yenoo maanaam yéene na woon bu ngeen demee di ngeen ko garde ndax yéen ponkal ngeen groupe ngeen ñu bàyyi leen ngeen ànd ak xale bi ngeen dem ñëw naan ñu loolu yenuwul maanaam kon nag gars yi dañ leen seetaat nu ñuy dundee ñu gis ne programme alquran programme diine yàlla ji programme bu set wicc la programme bu amul benn jàdd jàdd wala benn manqué manqué tilim tilim yi ci ñun ñii la dara warul la ko nag la dul bàyyi bi ñu bàyyi téere yàlla bi def ko téere barkeelu wala ñu koy jàng am ñu dee am na ñoo xam ne ci biir Sénégal amuñu liggéey lu dul jàng alquran rek di wër ci dëj yi di jàng alquran ci wër rek di di di ci dëj di déglu dafa mel ne dañuy déglu rajo wala dañuy xool Facebook suñ déggee kilifa gu dee rek ñu gardu seen kaamil ñëw toog wala ñuy jàng jàngalu taxaw ci baas bi di yuuxu pour ñu jox leen dara waaw xale yooyu doye woon Amérique biñ leen indee jour biñ leen indee di leen suul ndeysaan man bokkoon naa ci ñi tardé rob ba damaa ñëw fekk ndeke hôpital lañ leen jële rek dem yoof te man kër ga laa jubal ma ñëw seen papa demul mu ne ma dem nañ dem nañ suul leen yow mën ngaa toog fii ñu toog ci baas bi rek benn waaye ñëw ah mu ne ko salaamaaleykum salaamaaleykum ah mu ne ko salaamaaleykum waay lii yow ne dangay jàng mu ne ko bul jàng kenn jàngalawu la toogal am yoo xam loolu la ñuy liggéey wër ci dëj yi rek ah ñu jox la wala yor seen kaamil ku ndaw juróomi nit di siisaate sax nag dañuy siisaate waaw boo ñëwee ne nii ñu ne la bu ñu paree ne waxal waxal waa dëj bi ñu jàng kaamil bi lu ñu leen di jox ñooñu ñëw ne la ñaata leen di jox ñu ne war bu ngeen joxee foofu cinquante mille baax na ndax wala cent mille baax na bu dee patron la moom lu bëri lañ leen di jox ay trois cent mille ay cinq cent mille léegi nag loolu la ñuy def métier wala loolu rek seen yoon ci dundu alxuraan jàngale ah wër rek am na ñoo xam ne mënuñu sax liir nag yàq rek yàq alxuraan bi alxuraan loolu taxul mu jóg. GIE alxuraan groupe kaamil alxuraan dafa ñëw pour ñu dund ko ay ñu faram-fàcce ko wàcce ko suñu dund ndax ñu mën a jaar mën a def ci li yàlla bëgg waaye bu ñu defee téere bi téere barkeelu bala ñu koy jàng am ku dee wala ñu koy jàng nga tiit ñu ne la inspecteur général da lay seet si nga ne kaay leen ngeen wàcceel ma kaamil ci bureau ba bala nga koy jàng tabax kër gu bees war a toxu ñu ne la kër gi daa am ay jinne jàng fi alxuraan ndax jinne yi daw nga ñëw wàcce kaamil balaa ngoy jàng nga jënd oto bu bees nga jël kenn ne ko kaay jàngal ma ci alxuraan loolu taxul alxuraan wàcc li tunzira man kaana xayyan dafa ñëw pour ñu jàngal ko kuy dund du pour ku dee waaw léeg-léeg jàngal leen ko yaasin day sukuraat ndax mu gaaw a dee te nga ne nañ ko jàngal nañ ko jàngal yaasin ndax mu dundaat waaye jàngal leen ko ndax mu dee benn waaye ndeysaan da yaa pap yaayam daa dee ñu dem jaale ji ko ma yegg si rek mu ne waa mère bi de bi ma sonalee fii sukuraat bi ci paat diw rek laa dem ne ko ana góor gi mu ne maa ngi mu ne ko génneel yaasin bi man sonn naa papa mais mu ne waaye mu ne da waay paa bi daa jàng yaasin balaa may del siwaat ci kër gi rek mère bi góor na bu yàgg non may xool waa ji xool ko xool ko ba jaa ma ne kii de yàlla dafa dindi yërmande ci xolam sa yaay lu toll na yaay ndeysaan lu toll na yaay xanaa xam ne doomu aadama bu ñàkkee yaay rek dundam jeex na yaay kenn mënu koo remplacer mën ngaa ñàkk baay amaat baay waaye boo ñàkkee yaay oh ak a métti yaay kenn mënu koo remplacer ci doom lu mu métti métti métti yaay yaay allahu akbar kon mbokk yi ci yàlla ñun dey bu ñu xoolee ba till yi lekk te ñun mbooloo lañ inna isan la xaasirun kon dañun perte nañ wallaay xullee ànd ak sunu rakk sunu papa jox ñu ko ñun ñoo dem campagne ba paa bi libéré ko ak ñun tey ñu yàbbu ko ci àll bi di xoole di xoole di xoole ba till lekk ko kon ñun perte nañ waaye lii yëpp ñu wax dëgg la wala dëgg ah lii ñu doon wax yëpp ndax dëgg la wala dëgg lii nu mu demee yëpp chaîne bi ni mu demee niñ ko ràbbee dañoo bëgg yow lu la dal yow bàyyi tax wóolu wóoñu ñun kii sunu rakk la ñun dañ koo bëgg ah lu tax yow doo ñu bàyyi ñu ànd ak ndax lii seen wax yi ñuy wax yëpp ba fi ñu yegg nii ndax yëpp dëgg la dara du ci dëgg ndax dañoo complot dañoo toog ci benn néeg wala ca àll ba réunion ba xam lu ñuy def ñu nas seen pexe ñëw di tuur seen papa lëndëm waaw am na benn waaye bu dóoroon papaam mart damaa bëgg nga jox ma kayitu kër gi ma denc ko parce que léegi da ngaa màgget xam nga li wóorul ndax nangam nangam paa bi jox ko mu dóor kayit gi jaay ko naaw paa bi dañoo toog rek huissier ñëw ne paa bi yow délai bi ñu la mayoon jar na paa bi ne ban del ñu ne ko kër gi mu ne waaw ñu ne ko kër gi yaa ko jaay mu ne man ñu génneel ko kayit gi génneel ko lettre yi génneel ko témoin yi ndeke doomam moo ko jaay xam nga lu garaaw mu jaay ko ba pare au lieu mu mu ne mu dem sax tukki Italie mu dem fenn fii ñii ci biir Sénégal di dugg ci cabine cabine yi xam ngeen boobu télé kii amul portable amul muy dugg ci cabine yi di woote maa ngi Italie ndeysaan maa ngi itali gars yi ne ah yow de paa bi fi mu nekk nii paa bi dafa feebar paa bi ndeysaan bi mu amee problème sëriñam moo ko jël si comme paa bi amatul fu mu dëkk sëriñam jël si ko yóbbu ko dëkkam jox ko fa benn néeg maire yi ku nekk sa doom jël si la ku nekk sa doom jël si la ndeysaan ñenn ñi amuñu fu ñu dem ñu génne seen bagage ci biti waxuma leen ay léeb de lu ma la fekkee laa leen di wax lu ma fekkee ndax koñ bi ma dëkk la amoon koñ bi ma dëkk ku ànd ak man léegi man la kër gii la kër googu noonu la tasee kër gi dafa tas paa bi amoon na ñeenti soxna ku nekk sa dooma la jël si paa bi moom s- sëriñam jël si ko doomam bu góor moo jaay kër ga te paa bi yëgu ko moo tax dafa torox ba fii may toog xaw ma dee na xaw ma dee waaye daa torox boobu lañ ko gëj a gis fii ci koñ ñi ko gisaan ñëpp seedee luñ ko lu baax doomu aadama warul tas yaakaar kenn warulaa wóolu nga tas yaakaar ci liñ la wóolu bu dee réew lañ la jox bul tas yaakaar waa réew ma bu dee liggéey lañ la jox bul tas yaakaar ki la jox liggéey ne la defaral ma sama lii ak loo mën a nekk nit am ci yow confiance ñëw ñë la yow bul tas loolu ñii seen papa daf leen wóolu ñu dem tas yaakaaram mu jooy ba gumba ndax tas giñ tas yaakaar yal na yàlla def ci ñun dégg ak topp loolu mooy dars tey asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu su fekkee am na ay questions incha allah